Euh, spécial Saint-Valentin bi ngeen fël dem stratégie bu garaaw jékki-jékki rek envoyé nit ñi seen i affiche di ko euh, euh, Sidy Diop day soxna ba Matar Diop ñëpp a def statut. waaw moom nit ñi da ngay fëgg bi jaar porte bële boo bëggee rëcc des fois nga signalé gauche jàdd droite mais jubluñu ci dara dañoo jugoon pour defar xamaar ak liñ dëgmal nii kese moo ñu tax ñu dugg dugg ci meedu dara billaahi ñëpp naan Matar Diop kilifa la daawul taamu dund ci yoon ba pare commentaire yi bëri woon na ci côté bi ñi naan jabar xale ñi naan waru koo takk. <laughs> mais soo biir ak coow ñoo ànd Sidi tamit bu tax jabar dëggantaan nii lay mel ndax moom mbiram lépp léppam coow la mais gars yi dañ comprendre ne soo biir rek jubluñu ci pour dara pour lu rafet rek moo tax ñu jublu ci xama ak chaque jour àdduna surprise moo ci dàq loolu kese lañ ci mooñ ci dugal quoi mais dara dara dara taxul ñu ñu ñu dugg ci. waaw démb ñu daal di gis sa benn sotti nga dem eh, seetaani ki nga xam ne moo di oustaz lan nga ci jublu woon nag tamit bari sotti bi nga demee seet si nga xam ne moo di oustaz oustaz kan euh, RDM oustaz kooku sama mboq la kooku sama deret la kooku sama dëkkandoo la ñoo bokk yëmbal ah mais kooku sama dëkkandoo la de kooku soobis boole ñu mais dem bi nag ñu ngi doon waxaat ni kër day door maatu parce que des fois day nekk ci internet bi di saaga moo moo waraloon muy dem non jamais kooku man moom bi ñuy xam bi ñuy xamante dugguma sax ci milieu showbiz Mouhamed kooku seen kër laay defee lépp magam sama xarit la Gora mbay ñooy ànd ñooy defandoo lépp kooku man moom showbiz boolewuñu sama xaritu yaay la te man ku bëgg sama yaay dama lay bëgg ah non. mais a waaj a xam ndax Adama moo kay moomay kalaame man kenn teewu ma ci code prib la Adama xaar prib te Siri nee na prib man tamit man la moomay teree wax. man lu may tere wax ci àdduna amul xanaa dee wala Sidi Diop bàyyi mooy tere wax man lu may Adamo Adamo man damaa mën a tënk man soo kenn mënu ma jee tënk ci àdduna kenn barke ci TikTok bi nga ni carrément pièce bu ne ak lépp lan lay tegal. waaw loolu comprendre naa ko du ma moo tax man yooyu noonu dama ciy rëcc rek ndax sama xel bi maa ko moom te maa xalaat maa ngi soobee waaye maa ngi sóoraale loo xam ne war na war a mën a jigee feneen ñëw ci man tamit ay xale lañ nekk nekkuñu xale yoo xam ne dañuy ñëw wala benn xale jigéen jugee fii rek

déggoo la ma la wax Sidi jëmmam rek bat buzz la yow gars yi gars yi ñoom gars yi dañoo sawar ci yu nag dañoo sawar ci moom parce que comme ni ma la waxoon rek nga nekk xale pare nekk waykat ñi ñi la fi jiitu yóbbul ñu la dara à chaque fois rek dañuy bëgg chaque jour sa échoué mais Sidi Diop moom lu mu def day neex vidéo boobu mu percé mu ñàkk bañ a percé lu ñu ci am important mooy Youssou bu wooyee bu wootee five day fees bu ñu wooyee dañuy gis loolu moo ñu amoon important. mais Barito Bathie da ngay takk jabar cet kilib la <laughs> mu lay la di takkoo jabar da si musul def loolu communication marketing est-ce ci côté Sidy si daan na génne te du def loolu te day dox. te gis nañ bii mu créé day takk jabar te takkul jabar. yàlla yàlla def jàmm ñi nekk ci bi yëpp bii loolu amee na moo tay lu mu def moo tay lu mu def moo tay. nangu nga bu échoué moo tay bu esiwowul moo tey Sidi lu mu def moo tay yow Bad Buzz si nga bokkoon. Ah, nga ne bàyyi nga Sidi Diop. man maa def loolu. wala xamoon Bad Buzz yow. man man ngay wax man maa ne bàyyi naa Sidi. Ah. man maa fen ne bàyyi naa Sidi. man maa fenaan ne bëggaat naa Sidi jàppaat naa Sidi. mais xamoon nga ni Bad Buzz la. loolu yëpp ma leen wax waaye en tout cas daal Sidi lu mu def ci àdduna moo tey. Ah waaw moo tey lu mu def moo tey bu nekkee lu neex moo tey bu nekkee lu naqari moo tay bu nekkee lu baax moo tay bu nekkee lu bon Sidi moo tay. d'accord d'accord après décès sunu gis nga Sidi li mu wax bi ñu ko tàllalee micro nee na Wally loolu Sidi def bu doon waa Sidi Sidi moo nekk ci situation boobu noonu dafay def lu gën a raw loolu noonu donc est-ce que xaaroon koy taxé ni dëmm rey la xam nga loolu noonu bëgg ci woon ñëw sax parce nekk loo xam ne lu lu lu ma amal njëriñ la. waaye ñun soobis bi ñun bañantewuñu ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañuy mbalagante ne dañuy yëngalante dañuy tooñante mais ku ci xewle dañ lay demal moo xam bànneex la moo xam ñaanu ko yàlla mu nekk naqar la yaa ngi comprendre ñaanu ma ko yàlla yàlla na yeex bu nekkoon suñu yaay sabu jara moo fi jugee sax waali day def lu mel noonu wala mu def lu raw loo noonu kon ñi ñu chaque fois dañuy bàyyi di jaawale showbiz ak naqar wala bànneex ñun dañuy mayante xaalis waali mooy may Sidi Diop xaalis Sidi Diop mooy may waali xaalis mais taxul ñoom ñaar ñu nekk ay noonu Sidi du dem armée la du fa jógee dem biir këram jàlle ko saafante ak nit ñi xam nga mais yenn sénégalais ñoo bëgg di tas àdduna ñoo bëgg di wax lu bon bëgg ñu fekkee lu baax bëgg ñu fekkee fi ñu koy waxee mais Sidi Diop ak Wally mosuñoo réeroo ci àdduna soo bis moo leen boole rek mais bu jeexee ñoom ñaar ay frère lañ ñoo bokk lépp ok waaw album Sidi Diop mi ngi koy waaj mi ngi koy waaj pour génne ko am nañu wax naan c'est pas le moment opportun pour a dugg kenn xamul lu ñu bëgg Sidi Diop daa war a génne mu war a génne ñooy day xaar koor ak Sidi Diop bu ko neexee mu bàyyi màggal Touba mu génne album loolu moom la concerné te incha allah album dañ koy jënd te ñii ñi dañ koy cons loolu kese la ñun ñun ñii ñi bàyyi ñoom xel li ñuy wax ñun xam nga ñun lu ñu amoon important Sidi Diop lu mu def ñun ñu gis ko suñu xool sedd ci ñu dox ci loolu noonu leneen amul ñu njariñ waaw sénégalais ñoom seen conseil dégluwuñu ko sax yu maanaam waa waa waa waa yéen xanaa yéen yéen yéenay seytaane yen ñaata artiste ñaata ñoo fi tëgg ñun ñun ñun ñun ñun peut-être bi lu muy bett tamit yëpp ñi ngi doog a tëgg tey ñi ngi doog a tëgg tey mais ñaata artiste ñoo tëgg ci ginnaaw mais yéen yéen yéen seytaane yeen lan moo tax yeen yéen artiste yi demo len ngeen fek fiñ nek ne lan moo tax ngeen tëgg. siri nak, bi bu tëggee jaaruna ndax lepp passé na wa wa nak de de de nak du fi mbagn de de du fi mbagn de du fi mbagn de man mi di wax yow ñak na sama bay yagul dara de du fi mbagn quoi nañ bàyyi yi détails yi ñuy top di wax siri bu da war teug bi suñ mama jaaga ganyo, li ka war def nako bi lol passé ñu bari teug teug nañ mom mu sur teugul mais instant bu génnee nag jot na nag parce que fansam dañ ko namm mais waale sax moom waale nday mbil gi moom dafa war a génn way parce fansam yi dañ ko namm ngeen may si tëgg léegi may si tëgg. waaw waaye yéen yéen jàmm. non kenn waxul si di tëgg. waaw problème bi. la ñuy wax maanaam dafa teel ci lu tax mu teel. deewoo reeroo. deewoo reeroo fu mu am. ah yen tamit na bàyyi leen ñu waaye tamit nag mais si dafa war a tëgg. lee passé na passé na maman Diaga dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana mais Sidy nag liggéeyam lay liggéey nag ci topp ci ginnaawam dañoo bëri nag wax fa yàlla ah jërëjëf bari leen seen waxu